écrivain intellectuel ak i artiste africain yiy xeex racisme taxawal nañ ko bureau régional multisectoriel bu UNESCO bu nekk ci Afrique de l'Ouest boo xam ni day jëngu ci wàllu woowu moo taxawal bile réseau nga xam ni day dajale ay écrivains ak i intellectuels ñoo xam ne dañuy xeex lépp lu jëm ci racisme. comme vous savez l'UNESCO travaille depuis. UNESCO mu ngi liggéey depuis année soixante yi ci ay mbir yu soxal am solo lool loolu moo tax organisation bi mu ngi baral liggéey bi gannaaw bi nga xam ne faat nañ ci nga xam ne moo di George Floyd gis ngeen fi acteurs yu bëri. kon réseau bi ñu tàmbalee ko Afrique dafa doon lu am solo lool. li waral bile réseau nag bureau régional bu UNESCO dafa bëgg dooleel xeex bi nga xam ne dafa soxal lépp luy discrimination. notamment en réfléchissant avec. Euh, ñu ngi xalaat ak ay experts ci benn projet bu tudd coup du racisme. dañu seetlu ne Afrique dafa néew loolu lu ñu koy dégg ci waxtaan yu soxal racisme ak discrimination moonte pour nga comprendre trajectoire bu continent bi il faut nga xam yenn concept yu si mel ni race ak esclavage nga xam ne dafa bokk ci histoire Afrique. bi les réseaux nag dinañ ci amal ay waxtaan. ngir mën a indi ay solution ci discrimination bi fii ci Afrique. waaw xam nga réseau bi comme am na ay cinéastes yu ci nekk am na ay euh, écrivains yu ci nekk am na ay chercheurs yu ci nekk ku ci nekk par rapport ak euh, li nga xamante ni ci ngay yëngu bëgg nañ ci am au moins bu ci nekk benn activité boo xam ne nekk activité phare. boo xam ne nañ ko def sur l' année deux mille vingt quatre de sorte que fii ba deux mille vingt ñu bool leen pour que ñoom ñëpp ñu réfléchir sur comment nañ mën a mettre en place benn euh, réseau boo xam nañ ci taxaw di waxtaan ci lépp lu jëm ci mbirum racisme ak lépp lu jëm ci mbirum discrimination. réseau bi dina dajale ay acteurs yu bëri. moo xam ci fànn bu ñu mënti yëngu te ñu mën a indi seen contribution ci xeexum racisme dina tax itam njiit yi jël ay dogal ngir gën a dugal seen loxo ci xeexum racisme.